yoon tey comme ni dañu dikkoon donc def euh, ndaje boo xam ni euh, pour euh, ñu partager mais tamit valider document bi nga xam ni moom la ñu moom la étude bi nga xam ni moo jëm ci lépp lu jëm ci wàllu garab ci université bi wàllu garab wàllu wàllu wàllu wàllu fleur ak lépp lu jëm ci ci rafetal donc tey moom la ñu dikkoon donc partagé ko ak ñi nga xam ne ñoo seq université ci njiitalu sëñ maam Thierno si euh, sëñ Ahmed Badiou ak sëñ maam Thierno Mbacké euh, ak sëñ Mourtala mi nga xam ni tamit moom moo moom moo yore kuréel gi nga xam ni moom la sëñ Moustapha Abdou Khadir donc samp bon kuréel googu yàlla def man ñu jiital ma ci étude bi def nañ ko ba tënk nañ ko ba ba joxe ko gis ngeen ko donc validé nañ ko incha allah léegi li nga xam ne moo ci des mooy jublu ci ci liggéey bi liggéey boobu nag comme ni ma ko waxee sànq moo di lépp lu jëm ci wàllu rafetaayu université bi euh, kuréel googu sëñ Moustapha Abdou Khadre moom mi nga xam mooy jëwriñ ji ak ci ndigalu sëñ ñu koy dolli ñaanal wér ak gudd fan loolu euh, donc ci loolu moom ciy liggéey ak sëñ Mourtala mi mi taxaw ak ñi ko séq ñëpp liggéey boobu nag euh, fi ne bi ñu ko xaymaa toll na ci téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak ñeent bon budget boobu euh, actuellement commencé nañ ko ba commencé liggéey bi sax euh, liggéey bi door nañu da ngeen wax ay pépinière ah pépinière yooyu commencé nañ ko wut garab yi tamit fépp foo xam ni garab bu war a dem ci université bi xam nañu déjà fi nga xam ni fa lañ koy jëlee nga xam ni su fekkente ni am nañ ko am na suñu pépinière baax na su fa amul ñu dem jënd ko su ko defee indi ko léegi nag euh, nii ñuy liggéeyee université bi noonu lañ koy toppee bépp jumtukaay boo xam ne noppi na rek su ko defee sëñ bi suñu joxee ndigal rek su ko defee ñun léegi ñu commencé foofu loolu sax nañu def ba gis ngeen euh, jumaa ji gi sëñ Cheikh di def ak centre de santé bi ñun déjà foofu lañ ñu jox pour ñu commencé foofu suñu ko joxee donc ba ñu def kii euh, terrassement yi yooyu ba pare su ko defee ñun ñu ñëw léegi donc jëmbat lépp luy fleur garab ak li ci war yëpp su ko defee léegi xaar beneen kii bu paree rek ñu daal di jàllaat foofu ba université bi daal di noppi. kooku lu ama am solo la ndaxte waxuma sax euh, Touba wala Sénégal mais kooku àdduna bi yëpp la la la yitteel ah. mu nekk euh, loo xam ni euh, lu ñu war a jóg la te loolu tamit gis nga tuubaa daf ci am daf ci daf daf daf ci am taxawaay bu am solo jaarale ko ñu jaarale ko tam suñu kuréel gi. bépp garab boo xam ni fi mu ne nii dem nañ ba gisatuñ ko wala book mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi néew mu ngi raaf comme ni ñu koy waxee dinañ ko jéem a indiwaat ci loolu sax gis ngeen waxtaan naa ci ak euh, directeur bi nga xam ni mooy institut des sciences de l'environnement bu université de Dakar toog nañ ci waxtaan donc ñu jàpp ay solution yoo xam ni incha allah dinañ ko mën a def non seulement fii à Touba mais également même élargir ko wax dëgg yàlla mu mu jëm ci yeneen régions yi ci Sénégal ba xam ni loolu daal am nañ ci yaakaar mais li am solo daal mooy fii ci université bi lañ koy dooree ndax université bi tam xam ngeen ni euh, UFR yi fi nekk am na solo hmm? yoo xam ni ci wàllu garab ci wàllu mbay yooyu yëpp tamit day day day day laaj wàllu garab te incha allah donc ñun dinañ ci dinañ ci taxaw daal ba luñ ci mën donc dinañ ko def aouzu billahi mina sheytaani ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant Sëriñ Tuubaa bu baax ñu ngi am mbégte bu baax ci euh, li fi am li fi xew tey muy daje bu am solo boo xam ne dañ ko def ci wàllu aménagement yi nga xam ne mooy kon lépp luy naatal taaral université ah, liggéey boobu nag euh, yàlla dogal bi nga xamee ni si def nañ études yi ba pare ba ci waaj a noppi ca la tawféexu Serigne Touba ñëw euh, Cheikh Moustapha moom Serigne Abdou Khadre euh, ñëw ànd ak mbooloo euh, boole ñoo ak Cheikh Mamadou Mourtala mi ak Serigne Modou mbay ak ñi mu àndal ñëpp ngir ñu jël aménagement yooyu ànd ko ak ñun saytu liggéey bi Euh, ba jëmmal ko tey nag kon euh, li ñu doon def mooy daje boo xam ne day nekk validation mooy liggéey boobu nga xam ne euh, dafa am ku ko doon def ñun ñëpp nu daje ingénieurs yi nekk fii ak commission pédagogique bi ak architecte ak ki doon def étude bi ak sëñ Modou Mbaye mii ak ñi mu àndal ñun ñëpp ñu daje fii valider loolu yàlla dogal na nag am nañ ci tawféex ndax xalaat yu am solo jóg na fi ba yëpp incha allah daañu ko dugal ci étude bi euh, nga xam ne kon mën nañoo jàpp ne loolu fi ñu toll nii euh, sotti na ba pare incha allah kon euh, ñuy doole nag gërëm bu baax Cheikh Moustapha di ko di ko fas di ko ñaan mu fasaale nu ci liggéey bi euh, nga xam ne xaasam la euh, ci bisub Cheikh Abdou Khadr bi nga xam ne kon wane na ne euh, liggéey bu boromam nangu la kon ñu ci am mbégte bu baax a baax a baax li am solo nag mooy fi ñu toll nii dañuy waa dañuy waajal nu ñu nag jëmmale mbir mi Euh, ni ñu koy jëmmalee liggéey bi euh, nga xam ne euh, toppatoo garab yi ak ak pavage yi ak ndax li ci aju lépp sotti na mooy lu ci nekk na mu war a war a tëddee kon li ci amoon solo daal tey def nañ ko kon ñu ngi sant bu baax di gërëm. suivi garab yi day day day day lu am solo te lu ñu bàyyi xel la ndax li tax ñu bàyyi ko xel mooy. arrosage bi ci boppam euh, dañ ko boole ci liggéey bi nga xam ne euh, ndox mi ci boppam dañ koy traité euh, assainissement bi muy arrosé garab yi nga xam ne loolu dañ ko boole ci système bi la ca la ca desit mooy dañoo am fii dañoo waajal ci barab bi benn service maintenance entretien loolu am na bâtiment boo xam ne loolu looloo ko tax a jóg kon ci bâtiment boobu ak ci ña fa war a nekk loolu bàyyi nañ ko ci xel euh, euh, ndox mi ci boppam itam euh, def nañu études yi ba nga xam ne lépp loo xam ne prise d'eau yi fu mu war a génn rek ngir mën a arroser garab yi loolu itam waajal nañ ko ci lamay may mujjee nag mooy ñii fi ñëw tey euh, sasoo sasoo li ñu sasoo dañ koy ànd ak ñun ndax daanu daanu danañu bokk ci euh, ni ñu koy taxawale ni ñu koy ni ñu koy garab yi ni ñu koy jëmmale waaye itam noppi nañ ci ànd ci ànd ci ak ñun ci wàll wàll suivi bi nga xam ne Euh, ñoom bu ñu wutee wutee garab yi ba jëmbat ko dañ koy àndak ak ñun ci suivi bi kon loolu daal ci ci tënk moom lañ fi waajal ngir loolu nga xam ne mooy pàcc bu am solo ci suivi bi ñu mën koo ñu mën koo taxawee ni ko war a taxawee ànd ko nag ak ñi nga xam ne euh, ñoo war a yor université bi ci wàllu commission pédagogique. sant yàlla bu baax rek di sant Serigne Touba bu baax mi nga xamante ni moo ñu boole ci liggéey bi. liggéey bu am solo bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha mhm. euh, moom moo ko yëkkati woo ci murit yëpp mhm. euh, waaye nag may yëkkati sama kàddu ci turu Serigne Moustapha Am Sëñ Xaadir mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci liggéey bi euh, xanaa rafetlu lépp rek wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo liggéey bi am na solo kon nag léegi li ci des mooy ñun ñëpp rek ñu maase laxasaayu fas yéene jéem a jëmmal liggéey bi ba ni ko sëñ bi bëggee ñu amee ko noonu bu ko defee nag kon ñu ngi woo mbokki taalib yëpp ak mbokki jullit yëpp eh, rawatina ñun murit yi nga xamante ne nag laxasaayu liggéey sëñ Tuubaa rek mooy suñ liggéey moom la ñuy xëyee moom la ñuy gonte lii nag tawféex la joo xam ne sëñ Tuubaa moo ciy tawféexal nit waaye demewul ne nit moo koy fàggul boppam sëñ Tuubaa képp comme liggéey liggéeyloo rek daan la jox jumtukaay ba nga xam ne moom lañ ko war a liggéey kon nag waxtaan nañu ak ñoom ñoom it dalal nañu wan nañ yoon wi fas nañ yéene jaar ci yoon woowu ba ni ko sëñ bi bëgg rek ñu amee ko noonu ñu ngi woo bakk taalibe fu fooy mën a nekk nga xam ne liggéey bi sab liggéey la maanaam noo ci mën a jàppe ak wet goo ci mën a jàppe rek nga jàppe ko ci ñu ngi leen di sant yéen journaliste yi ak ñëpp rek sant nañ leen bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi di leen di nuyu maam Thierno Mbacke mi nga xam ne moo ànd ànd ak sëñ Murtala suñ doom ñoom ñaar ñi di ñaari doom ñu àndoon ca liggéey ba ba ñëw nag waxtaan ba noppi doon ma leeral si fañ toll ci waxtaan ba loolu mooy solo si jotaay bi te ne ko maam Thierno waxee mu faram dëpp seen bisum maam Cheikh Abdou Khadim Mbacké mu gën a tax ñu gën ci am yaakaar ndax noonu mu ko waxee bañ koy jàpp bàyyiwuñ ci moom xel la kon nag loolu ñuy woote mu jëmbat garab euh, euh, day dafay day tiyaabu ju rëy rëy ndax euh, ku mu fekkoon yonent bi dane ku mu fekkoon saa ngi bëgg a taxaw tafat nga yor garab war koo jëmbat sax na nga ko jëmbat soog a soog a dem faatu ji <laughs> waaw kon loolu lu rëy la euh, lu am tiyaaba la kon yàlla na ci yàlla dimbale ciy soññ suñ bopp waaye dañu ci sotti taalib yëpp rek waaw yàlla na euh, njëriñ la lu te lépp luy taaral Tuubaa yi ko dib taalibe war nga cee góorgóorlu yàlla na ci yàlla boole dimbale te defal ñu ci ndam. kon nag ñu fas yéene tàggatoo ak yéen te ñaanal leen bég naa maam Thierno nettali na ma liggéey bu baax nettali na ma ko moog suñu murtalaa ci néeg bi maam Cheikh Seye ñëw fàttaliwaat na ba fàttaliwaat na ma it fas maam ma ne ñoom eh, ndax wa man yusaamihi abuhu fa ma salaam <laughs> te te baayam ko ci taalib bi ah, kon kon ak moom bu amee rek danaa ci bëgg waaye danañ xam ne du du kon yàlla na yàlla dimbale li ma leen ko waxee léegi rek eh, liggéey bii day liggéey bu ñor Cheikh Mouhamadul Mountakha mu fi nekkal jataayu sëriñ bi te nag eh, liggéeyal Sëriñ Tuubaa mag dafa maa waxoon ne ma. kaay nu liggéeyal sëñ Touba mooy kaay ñu nemm lem lem nag ku xam na li ne ci neex bi ku xam nañ li ne ci li ne nekk ci bànneexu nemm gi loolu mooy moom képp mooy liggéeyal mooy kaay ñu liggéeyal sëñ Touba loolu kon mooy suñu soññee ñun ñëpp nga xam ne moom lay tëjee ñun ñëpp nañ gën a góorgóorlu sëñ moom ku koy liggéeyal ku nga bëgg koo liggéeyal sëñ Abdoulaye nee na woon eh, lenn rek moo ci sa war ordre façon la ca des moo ko yoral boobu. kon nag yàlla nañ ko fasoo rek. nee na nee na da koy àggalee ba noppi nag bàyyee la sag bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah.